بيت الولاية مفتاح الظلام ومفتاح الخلود وختم الكل الفضائل نبلغ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن القطب المكتوم وبرزق المختوم قوز السمداني أبي الأباس أحمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن حامل اللواء طريقة التجاني في قيد حياته سيدنا ووسيلتنا شخصية الحاج مالس رضي الله تعالى عنه mbokki Misbah TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ñu di continuer waay suñu darsu faakihatu tulaab góor gi nee na Cheikh Seydi comme ni doon waxee silsila bi nga xam ne ci moom la Cheikh na Tijaani Chérif topp ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne <coughs> waxoon nag na salaa yàlla na julli alayhi ci moom rabbuna suñu borom wa sallama te musalman wa alihi ak ay ñooñam wa sahbi ak i sahaabam wa karrama te mu teddal ko Euh, Seydina Muhammad moomu mi ngi jëlee ci kon yonent bi wax na la ni Cheikh na Tidiane bi mu jaar <clears throat> mooy seen bi ba ci yonent bi yonent bi jëlee ci an Jabrail Seydil Malaika ki nga xam ne ci mooy sangu malaaka yi an Seydil Amlaaki wa Mamaliki nee na Jibril mooma mooy malakul waxyi moo gën a mooy gën a jege malaaka suñu borom subhanahu wa almuqarrabiina ladayhim subhaanahu wa taala moom la ñu wax ruuxul qudsi ballaqu anhu jalla jalaaluhu ruul qudsi moom ila an jaa fi lxeeri ruul qudsi lam yanimi mooy Seex Seydi Hajji Maalik junni ci xilaadu zahab sayyidil amlaaki nag suñ ko waxee mooy rabbul izzati wal jabaruut mooy yàlla subhaanahu wa taala an sayyidil amlaaki جبريل موم نك مو جيللي سي سونو بوروم سبحانه وتعالى والمماليكي يالله ميغا خامنا سي موم موم لب سسراج ماي نك كوماسي دي يا ربنا بالمجد والبهاء والذات والصفات والاسماء يا ربنا يا سونو بوروم ميني يارتا ربو بات بو ام دوري لول boo xam ne ci nit yàlla yi suñ koy jëfandikoo dañuy xam baat bi lan lay wund wala baat bi lañ lay lan lay lan lay tekki baat bi nag bari na li muy firi lool dañuy firi yar day firi yore <clears throat> yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yar moo ko yore adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla subhaanahu wa taala moo ma yar te rafetal na sama yar te yar kon ñu ngi koy jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yow suñu borom mi ñuy yar yor ñu bil majji sa tedd nga gi tedd nga yàlla kenn xamu ko wal bahaayi ak sa taar gi ak sa jëmm ji wa ak sa melo wal asmaa ak yi loolu sa siraaj Malik juñu na ci fii ñett yoo xam ne te yaat yi ak maxaama yi ñi nga xam ne ci kuñ dem ca yàlla ci ngay jaar mooy il faut nga dem ci fanaawu u fi asmaa illa موي واسماء الاسماءي فناء في صفات الله موي وصفاتي فناء في ذات الله موي وذاتي دا فا سياسه دا اجماع دا فخنا وذاتي وصفاتي والاسماء وذاتي مجمتي دا نيت كي دا فا ورا جيخ تاك تي تور يالا موي nga gis nit yalla yi di jël tour yalla diko sikar ba jeex tak ci asma allah soo jeexee ci tur yàlla yi moo lay yóbbu nga dem ci sifaat ci melokaan yi yàlla dafa am ay melokaan al qudratu wal iradatu yooyu melokaan yàlla la <clears throat> te melokaan yàlla yi ak jëmmi yàlla yi duñ teqali ko gis ko melokaan suñu borom ak jëmm suñu borom dañu teqali ko melokaan boobu nag soo ci nekkee ba jax ci takk melokaan boobu moo lay dugal ci zaatullaay ci jëmm yàlla ji te jëmm yàlla ji nag mbindeefu yàlla mu sa sedaañu maali wax na ci xurufu salaatul fatiha na yonent bi salallahu alayhi wa sallam maa daama raaqiyan li ala rute bi maa daama du dañ moom yonent ak dara day moom day am lépp saa yu kay ak certe bu nekk mi ngi yéeg ci maxaama bu musul yéeg moom yonent maa daama raaqiyan li ala ruta bi yonent ba fii ñuy wax ak yow mi ngi yéeg di yëg lu musul yëg ci yàlla di xam lu musul xam ci yàlla kon yàlla kenn mënu ko jeexal loolu tamit Seex Seydi Hajji Maalik ju ñuwaale na ci ne dafa am dem ci yàlla ñetti yoon la da dem dafa am lu ñuy wax sayru ilallaahi sayru anillaahi minallaahi ak sayru fillaahi mooy fayaf naa fa yaf naa fa yaf naa fa kaana aynal baqaaw léegi nag nit ki su àggee ci yàlla ba pare da war a dellusiwaat nag def baqaa baqaa boobu nag mooy tax nga mën a jëfandikoo nit ñi waaye sayru fillaahi nag kenn mënu koo jeexal mooy nga ne rek fii ci li muy firi mooy dans biir yàlla nit mënu koo dox di ci dox ba jeex ci takk ba jeexal yàlla subhaanahu wa taala mënul nekk ba te yonanti mënul jeexal yàlla Cheikh Sadaj maa ngi ne nag yàlla jëmmam juuju ak turam yooyu noonu ak tedd nga yaa rabbana yow suñu boroom mi ñu yarta yoññ wal ardi ak suuf wa samaa yi li nekk ci biir suuf ak li nekk ci asamaana wa ma biha yaa malikal ashiyaa yi yow mi nga xam ne ci yaa moom mbir yépp ndax yàlla moom gi moom mbindeef yi ci waaye daa moom léppam sa xalaat yeeg sa yëngatu yeeg lépp suñu borom subhaanahu wa taala moo ko moom moom gi ko moom nag dafa fés ba leer nañ li ni yàlla moomee li nekk ci biir suuf moom li nekk ci biir asamaan moom yëf yëpp yàlla moomu noonu ñi ngi ñaan yàlla seesa dahaaj maa ngi ne alyeex jamaati bi haulaa'i ñi tuddoon ci gannaaw an seydinal muhammadul kurdi yu ba ci anit jibri jabrail ba ci yonent bi ba ci jibri jabrail ba ci yàlla subhaanahu wa nit yàlla yi mu tudd ci lay wax ne alxeq yàlla nga yéegal jamaati suñu mbooloo mii bi haulaay ci la gaay mais est ce que moom du tëbb ci tariixa bi parce que ñii ñu tudd nii kenn ku ci nekk tijaan amut ñu sesadaaj maa tudd ci téere bii an sayyidina al kurdiyu anil xafni muhammadul xafni ñooñu kenn du ci tijaan sesad haaj maa nag na yaa rabban xaliq jamaati bi haulaay alix yàlla na yàlla na yéegal suñu borom subhanahu jamaati sama mbooloom bi haula bi qiratil axyaar al anbiya way tebbu tëbbu c'est ça maanaam xam nga xam xam dafa amul fum fum yam mu dafa raw nit ñi motax so soo songu ay mbiram war nga war nga ko ci li ngay wax Seydi Hajj malik mom mo leral ne tebbu ci bi suñ koy téré jamaa taxu ñuy wax mbolo yep nga an mani tebbu ci mbolom mi yëpp teqaliwoo kenn kooku du tëbb boo xam dañ ko tere li ñuy bañ mooy nga ne maa ngi tëbb ci diw walla nga tëbb ci koo xam na ci dañ koo ràññee wa kun xijaaban baynana ya rabbana wa bayna aadina xuruuri rabbana wa kun yàlla nga nekk xijaaban di kiiraay ya rabbana yow suñu borom baynana suñu diggante wa bayna aadina ak suñu noon yi xuruuri yoyu moo xam alal la nee na noon yi nag moo xam alal la alal noon la parce que alal am na noo koy toppee sa sadaaj maay ne alal ji boobam day nekk sa kiiraay sa diggante suñu boroom kon sa noon la wal awlaad yi nee na doom yi tamit noon la sa suñu digg parce que am na nooy toppee sa doom yàlla sa sadaaj maay ne dana nekk si kiiraay sa diggante suñu borom ah inama amwaalukum wa awlaadukum fitnatun nattu lay doon boo xam ne ci wala muy bànneex bànneexu bakkan c'est ça maa ngi ne bànneexu bakkan xam nga bànneexu bakkan dafa am lu ko ëpp doole bakkan dafa am lu ko ëpp doole dafa am lu ñuy wax nafsu am lu ñuy wax hawa nafs nafsu nag li muy am doole am doole bànneexu bakkan mu ëpp doole bakkan bànneexu bakkan doole bakkan moo tax wanaha nafsa an il hawa fa in al jannata hiya al mahwa bànneexu bakkan boobu tamit bokk na ci noon yi gën mag ak seytaane daw di ñëw nag kon nit ki noon bi njëkk ci yow mooy sa cër yi yow sa cër yi mooy sa noon bi njëkk bi gën a mag sa saraaj ne na cër yooyu noonu nag danga ko war a fexe ba tërbiye ko mooy xel mi li muy bëgg su bëggee leen lu yàlla rek dana la gàllankoor ci yàlla te lépp lu lay gàllankoor ci suñu borom subhaanahu wa taala loola sa noon la yow léegi nag bakkan bi ci li muy jeng di jëm wa xaalifi nafsa kon wa seytaana kon da war a wuute ak moom xam nga dañuy faral di wax ne ngistal sa séddaaj mu ne ngistal du def dara ngir nit ñi loolu dafa jege bokkaale dara def dara ngir nit ñi loolu dafa xaw a jege bokkaale waaye bàyyi dara ngir nit ñi loolu mooy ngistal parce que sooy def dara ngir nit ñi kon yaa ngi suuraale nit ñi waaye suuraate woo yàlla te loolu mooy bokkaale rek su ko defee nag loolu yëpp bal yàlla na nangu lan waqbal lana bi waqbal lana bil fadli wa ridwani mulbisana bi xulelil xufraani waqbal yàlla nangu lanaa ñeel na bil fadli sa sëbu ngëneel yàlla wa ridwaanu ak sa ngëneel ba tey mulbisana yàlla nga ñu woddee bi xullalil xufraani ci mbalaana moom jéggal la warxam yàlla nga yërëm jamiana mbooleem seen wa waalidina ak suñu waajur yaa rabbana yow suñu borom rabbi yow sama borom wa muslimina ak jullit yépp Seex Seydi Hajji Maalik nag radiallahu taala anhu nag bi mu paree ci loolu mu ne wa baadama qaddamahul kurdiyu raa nabiyu mustapha al safiyu nee na bi nga xamee ne Cheikh na Tijaani Cheikh Mouhamadul Kurdi yu mu xaddamal na ko ñi mu tudd ci gannaaw nekkul na Cheikh dafa gisante ak ñoom ñëpp waaye ñooñu ay mooy sëriñu Cheikh Mouhamadul Kurdi yu nee bi nga xamee ne na Cheikh Mouhamadul Kurdi yu mu xaddamal na Seydi Cheikh Ahmad Tijaani Cherif radiallahu taala anhu raxaa la gisee annabi asafiyu Cheikh na Tijaani dégg da naan raa gis na asafiyu kooku lu ñu ci namm mooy cheikh na tijaani mooy cheikhuna wa wasilatuna ila la gis nabiyu ad nabi yonent bi al mustapha ko de ku ñuy belle ci nag yonent bi nag sara cheikh na tijaani nag def xalwaam bu rëy wa ci abisam xon tëju fa tëju bu metti di fa sikar sikar yi di mooy faral di wax ne cheikh na tijaani da daan sikar di sikar ba soo fa wee cër yi dugal ko ci ndox dangay dégg ndox mi ni muy wañ ni muy def naan ca sas sas comme weñ gu tàng bi ndox maamum feeñu ko sallallahu alayhi wa sallam wax ko jox ko li mu ko ni mu bëgg jox ko li muy ut ba mu avant mu koy jox nag da ko demande Cheikh dana ko ndax lii may jox bunt la boo xam ne ci ku ko laal sa lépp dox sa diggante suñu yàlla yàlla du la topp benn bàkkaar moo xam dangay ngay moy yàlla moo xam xale nga moo xam mag nga moom saaj maa ngi ci amara nabi imaamana bi tanazuli li ifaadatil axlaaqi bi wirdihil jëli fa ajaabahu bi maqaalihi saafi rida fa jazaau rabbi bil jazail azali in kuntu baaban li najaati mu ne ko fekkee ne fekkee ne tariixi bi yi nga may jox buntu la boo xam ne ku ci jaar mucc fana am nangu naa wa ilaa su dul loolu moo tariix yi njëkk ñoo yem kon bàyyi ma ma jàpp ci tariix yi rek comme ñëpp ci yàlla la jëme moo tax tariixa cheikh damaanam dafa am doole moo tax mu ëpp doole ci mbooleem turuq yi tariixa yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim ci warlu cheikh la warlul kenn lim ci sart bi mu ci jox cheikh tamit la joxul kenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag mooy annabiyu moo tax Ibrahima Cheikh Ibrahima Rayaahi a Tunis radiallahu taala anhu ba muy tagg Cheikh di wax jëmmi tarixa bi fa ma dunuunaka bil wirdi alladi nadamat yaddu nubuwati al yubna bila saasi lu jërë bàyyi xel la fa ma dunuunuka lan mooy sa njort bil wirdi ci wirdi Cheikh na Tijaani bi nga xam ne wili wirdi ladin bi nga xam ne te nazamat nose na ko nose mooy tëralal na ko yonent bi moo wax ne nii ne demee da ngay dégg téeméeri astaghfirullah teg ci téeméeri salaat faate teg ci téeméeri laa ilaha illallah yonent bi moo ko nosee noonu kan moo ko nosee waxut yeddu rasul de waxut yeddu muhammad dana yeddu nubuwati loolu mooy lu sori lool ndax tariqa bi sosuwut ci yonent bi di doon dox ci Madina Makka ak Madina Munawara parce que xam nga loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi doon dox ci Makka ak Madinatu Munawara xaqiqam fa la tariqa bi jóge man sa u tariqati tijaani fi xaqiqatil muhammadiya te xaqiqatul muhammadiya suuf attanu ko moo tax du wàcc ci kaw suuf moo tax tariq bi ëpp doole lépp du yonent bi doon daaw ko ci Makka di wax ak saaba yi moom la déedéet xaqiqam moom la Seex Alhaaj Maalik ji juñ ci tey si naan nuurul axaata bihi anwaaru xaajibatan anil xaqiqati kullal xalqi te xaqiqa boobu noonu amul benn mbindeef boo xam ne ci àgg na fa kullal xalqi mooy nuurun leer la goo xam ne axaata da koo peeg anwaarun ay leer nuuru axaata bi anwaaru xaajibatan mbir moom nekkam di aju yiir ko anil xaqiqati ay anil wusuli ila al xaqiqati al muhammadiya kullal xalqi sasada aj maa ngi nee na mbindeef yëpp ku ci ak amut am na yonente yi si naan nag mi ngi mel ne rek am na ñu dëkk Dakar di naan xaqiqat xaqiqatul muhammadiya noonu la mel xaqiqatul ahmadi ñëw ñëw yu demee noonu xaqiqatul muhammadiya nag ahmadiya fa fala tariqa bi sosoo moo tax ñu ne tariqatul man sa u tariqatul fi xaqiqatul muhammadi al ibrahimiya al ibrahimiya nag mooy yonent bi li muy foor foor ak dooleem ji am ñëpp nga xam ne moo gën ci li yàlla bind yàlla dana ko wattabi millata ibrahima na nga topp yoonu suñu maam ibrahim soo moo tax tariqa bi maam ibrahima tawxiitu maam ibrahima ak doole ji ci desee bokk moo tax fondement tariqa bi soo xamee soo xamee li tariqa tijaani yi da nga xamee ne jàpp nga ci loo xam ne ci mooy لسن باوكر وخرك لازم لوازمه تكفي لطالب من المنافع في الدنيا واخرى دا ناي خامني ادنا لي تي بيرم سولين بوله تك لين تي بلاطو دا في ملني لاف يو لب تاريخ موكو يانو لب تاريخ موكو غادو تي كاو نك نيت كي خام كان موي شيخ نخ شيخ دا نكو لاج نكو صلاه الفاتحه سو دمي تي مشايب المشايب تير لا بو خامني جي كو امون ديغل منوكو يير تي تاريخ بي سوكو ييري دا ناي سيل مخا ليك ليك il faut que ñu may la ci ndigal lu wér Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Cheikh Mouhamadou Ali Harasim Barata moo ko liggéey téere boobu noonu doo gis ci marché ñoo ko fay jaay doo gis ñu koy photocopie al mashaa'it ndax Ali Harasim Barata la muy la muy la mu seetaan ci wàllu yàlla la bind ci téere bi al mashaa'it mooy li ngay xool nii di ko di jàkkaarloo moom loolu la bind ci téere ba Cheikh na Tiyaani dafa àggoon ci ba faatihatul kitaab ci jëwam soo xoolee jëwu Cheikh da gis faatee ni mu ci leere nañ mooy jëmmi aw xuraan faatee lépp mi ci aw xuraan te faat faatee ci boppam mi ngi ci jëmmi Cheikhu Tidiane ci jëbi ñu bind ko ci Cheikh àggoon na foofu noonu ci wilaaya ci wàllu yàlla kon xam kuy Cheikh rek mu ëpp doole ngay def lu ne Cheikh Mouhamadou Damra Mouhamad Damra yi dafa laaj tur yàlla Cheikh na Tidiane Cheikh na Tidiane na ko bul sonal sa bopp yow xam ma rek bëgg ma rek soo ma bëggee mu ëpp doole nga toog di zikar parce que liy yóbbu zikar ci doole ji ak leer ji kaka yanu mooy Cheikh na Tijaani kon nag soo ko bëggul wala amoo ci moom benn feel loo zikar fem ah? ndax wa kullu ma barazat min zaati aliyati tatalaqa u zaatu nabi wa kullu ma barazat min zaati nabi cheikh ne talaqa u zaati gis nga nag loolu lay nàndal ñu bokkul ci tarixa bi ñaari nànd waay mu am ñi muy li muy li muy nàndal ñi bokku ci tariixa bi ak li muy nàndal ñi bokku ci tariixa bi bokkuñu dafa am wa kullu ma barazat min zaati aliyati te mooy subhaanahu wa taala zaatu wa tatalaqa zaatu nabii te mooy sallallahu alayhi wa sallam wa kullu ma barazat min zaati nabii tatalaqa zaatu anbiya wa tullu ma wa kullu ma barazat min zaati anbiya tatalaqa cheikh nee na zaati loolu lay nàndal ñi bokkut ci tariixa bi waye nak dafa am benen seen bo xamne ci wa kullu ma barazat min zaati aliya tatalaqaau zaatu nabi wa kullu ma barazat min zaati nabi sheikh nee na zati biduni al anbiya bi nga xamne dafa joge ci yàlla yonenti bi def ci directement ci sheikh lolou lay nandal ñi bokku ci tariikh motax ñaari leer yi bokku ñu même wali biñ lay téré nga tebbu ci mom lam yore sheikh ko tebbu lutax ñu wañé ko tere lako ñaari nanu way ñu bokku ñaari ndox yi ñu bokul son jaxase da ngay soj <laughs> kon Cheikh doole juuju mel noonu noonu ak kàttan gu mel noonu la ko yàlla may doole juuju nag dafa jéggi dayoo ah kon ñu taxawa ne foofu di gërëm waa Misbah TV ah, ak ñi koy seetaan ñëpp di sàkku nit ñi nag ñu dugg ci Misbah TV di ko seetaan ndax njëriñ dong moo ci nekk di jàngale kan mooy Cheikh Seydi Hadji ak mbindam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam Alhamdulillah.

الخير زائرة سبحان الله